salaam salaam sama gars yi maa ngi leen di leen bëggee bu baax a baax di wax ne alhamdulilah dem nañ Touba ci jàmm dellu si nañ ci jàmm waaye image yi ngeen di gis nii mbokk yi du fenn fu dul Touba fi nga xamante ni moom mooy mbedd bi jógee ancien garage bi ah, macha allah jëm fi nga xamante ni mooy jumaa seen cheikh bi mbedd boobu la ah, foofu nag démb taw bi fa la ñu fekk taw boo xamante ni taw bu yàgg la mi ngi commencé li nga xamante ni moom mooy 17 heures la commencé taw bi nag dem naa dem a dem a dema a dem ba ay presque trois heures muy soog a jeex ba pare nekk taw boo xamante ni taw como Forlan, Euh, gis ngeen sareet yi ak nit ñi noonu ñi nga xamante ne la ñuy duggee ci biir taw bi ak oto yeeg taw bi ni mu bëree woon démb ci Touba waaye lépp rek ak cant la rek ak cant di wax euh, jërëjëf jërëjëf jërëjëf sunu borom euh, di waxati rek sant bu baax a baax a baax sangu sangay Seydina Mouhamed Rasulullah di wax jërëjëf sëñ Touba màggal validé ndaxte bu ñu màggalee bay ñibbi mu taw jàppal ni ndox moom xéewal rek la waaye mi ngi noonu loolu nag dafay tax rek ñu jootewaat beneen alerte boo xamante ne dañ koy jox sunu autorités yi pour ñu gën a xool ni nga xamante ni mooy canalisation bi jëm ci ville ville sainte de Touba ndaxte booy xool. Touba moom am na secteur yoo xamante ni macha allah bu taw bi commencé rek dafay nekk dëkk yoo xamante ni dafay méttee jaar circulation bi day métti rawatina nag jamonoy màggal nga xamante ni fu nekk la nit di jóge ci àdduna bi fu nekk la nit di jóge ci biir Sénégal ngir ñëw célébrer li nga xamante ni moom mooy màggal gi image yooyu ngeen yëpp di ko xool noonu mu nekk image yoo xamante ni yu réel la live lañ leen koy defalee ngir wan leen li nga xamante ni moom moo am ci euh, tubaa Mbacké ginnaaw màggal gi nga xamante ni màggal nañ ko doomu aadama yi ni ñuy doxee noonu di ñibbi ñëpp nag wax dëgg yàlla mu nekk góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ñëwoon nag ci màggal gi nga xamante ne mooy màggalu maam borom Touba Xaadim Rasool ñaan rek sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général ku lu murit mu yàgg fi lool te ànd ak wér ku ne ami nit nag fi yàgg lool te ànd ak wér édition 2024 jeex na édition 2025 mooy ñëw waaye souvenir bi nga xamante ni am nañ ko ci nag mooy ndox mi nga xamante ni wàcc na ci biir nekk ndox boo xamante ni ndox bu bëree bëri bëri la nit ñu bari bari amuñu fuñu seelo dañoo mujj sax toy xep saret yi wax dëgg yàlla da ngay xool saretu fas yi ak saretu mbaam yi da ngay mujj sax yërëm mala yooyu ndax coono gi nga xamante ni moom la ñuy daj nit ñi yéeg seen kawit amuñu dara loo xamante ni moo leen di muur ak ndox mi ñu toog tooy xepp tepp xepp xepp xepp mu nekk nag loo xamante ni image la yoo xamante ni image yu metti la waaye nag li ko jar rek moom moo ko jar te ki ko jar mooy kan maam borom Touba ndax moom dafa jaayanteeg nasaraan bi jaayanteeg nasaraan bi jaayanteeg nasaraan ba sunu borom may ko lii tey nga xamante ni moom la am muy màggalam gi nga xamante ni moom mooy màggal édition deux 2024 ak màggal Touba yi fi jaar yëpp ndaxte wax dëgg yàlla maam borom tuuba ak nasaraan si amul fu ñu jaarul tey jii nag foog mu jaar ak nasaraan si tey moom moo tax tey lii am nii kon nag bu ñu xoolee loolu rek xam ni ñun coono bi coono bu ndaw a ndaw la la par rapport ak ki nga xamante ne moom mooy borom bés bi fa mu jaar ak nasaraan bi kon nag mbokk yi dañ ciy jàngee rek ñun ay taalibe rek te nag murit lan lañ wax ndigal waaye daal jàpp leen ni lii moo fa amoon soldaar sëñ tuuba mi ma macha allah nekk koo xamante ne it ku baax la macha allah ñu àndoon nag moom alaaji malik ndiaye ñu ngi koy ziar di ko sant di ko gërëm bu baax a baax a baax nga xamante ne yoon bi yëpp wax wax dëgg yàlla sonn nañ ci lool koo xamante ni dugg nga ci oto trois euh, quinze heures euh, seize heures dix sept heures dix huit heures dix neuf heures vingt heures ba vingt et une ba li nga xamante ni moom mooy zéro heure munoo génn biir Touba ndax lan taw bu bëri ak embouteillage boo xamante ni moom mooy embouteillage bu bëri loolu ak sant rek la nag ak cant rek la ndax ñun taalibe murit moom leen rek la ñu jàngal sant rek muy neex nga sant mu naqari nga sant sant rek ñun dañuy sant rek di wax jërëjëf sëñ Touba jaraw lekke maam Cheikh Ibrahima Fall rek la ñuy di sant saa su ne kon nag mi ngi noonu mbokk yi gis ngeen image yaa ngi noonu fii day Touba la macha allah bi mu nekk nag dëkk boo xamante ni macha allah ah dëkku dëkku jàmm baa ngi noonu dëkku xéewal baa ngi noonu dëkku teraanga baa ngi noonu màggal édition 2024 jeex na màggal édition 2025 la ñuy wax yàlla nañ ci àgg ak jàmm ak salaam. képp koo xamante ni rek yaa ngi ci demoon lépp loo ci ñaan rek yàlla na ko borom bi nangu defal ñu jàmm def si réew mi jàmm def si àdduna bi jàmm ndaxte maam borom Touba salaamatan daay man rek la ñaan muy jàmm kon nag mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di sant di leen gërëm image yooyu ngeen gis nag moom mooy image yoo xamante ni moom moo amoon ci màggal Touba di béggee bu baax waa Ose Média di béggee bu baax waa MBS TV di béggee bu baax a baax waa Touba Mbella TV ah, ñetti chaîne yi nga xamante ne ñoo lëkkaloo woon dem fa liggéey fa liggéey bu am solo jërëjëf sëñ Touba jaral lakk a Cheikh